Lamine fabal sa kayit ngir bàkk seex jiili te yëgle bis bii ñu koy wootee li tab jiili ab bis dafay màgg màgg ak xew-xewam ba ca am moo tax bi la bis yeyoo siiwal te koy teele ñoo ngi fii ci pàkk bu sel toog fii ci kër Cheikh Abdoul Khadir yi li maay teeg ba sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir jël ndigal ca magam ja Cheikh Mouhamadul Muntaha mi Serigne Touba tey ku ne xam digganteem ak Serigne Abdoul Khadir ak Cheikh Amadou Mountakha Serigne Cheikh def na mu daa def jox rakkam ji sës ci moom jàppale ko ci lépp taxaw ko ñoom ñaar ñuy benn muy sëñ Moussa Mbakke mu Cheikh Abdoul Khadir mu toog fii ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir liggéey boobu ñu teg ko ci Serigne Sidi Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ni moo yor organisation màggal gi ak ñim ko àndal. lan nag moo tax ñu duggaat tey kër Cheikh Abdou Khadir lu kenn dul fàtte la ñetti fan ci weeru tamxarit di la trois ci weer wi nu jëm muy bis bi mu gane woon jamono te sëriñ tubaa waxoon ca maam Thierno Ibrahim ndaamal daaru la ko waxoon Thierno munu ko mbakke munu ko yéexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajal du dem safara sëñ Mor Abdou Khadir Mbakke mu baax ma ma ko wutu woon daana wax ni bis bu ñëwee. ku ñëw ca bis ba rek am ca loola ne at mu jot bu ñëwee ku ñëw ca bis ba am ca loolu kon Cheikh Abdou Khadir la ñuy fàttaliku ñaanal ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh moom Cheikh Abdou Khadir ci teewaayub Serigne Moustapha Mbacke rakam ak Serigne Sidi ak mboole mbokk yi yëpp. ak taalibe ak dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu ci turu kilifa yooyu Cheikh Abdoul Khadir nag noonu rek ni mu ko waxee ni la demee day jëmm joo xam ne jii moom dafa judd rek nekk imaam yaakaar naa ni musta nekk fenn maamum ba muy nekk ci at yu gën a saayere ci wàllu nekk ci ginnaaw sëñ Mbàkke Buso daanañ am waxtu yoo xam ne yii bu jamono xate mhm. mu dib taw mbaa diw tàngoor bu sëñ Mbàkke kàbbaree bu sëlmalee menn moom lay gis ci ginnaaw te boobu ati saayir néew na loolu tawarkal la boobee ak léegi it mas na maa wax ak mag moo xam ne ni dama ko doon laaj mu ne ma Sëñ Abdou li ma gis mu soppiku ci moom ba ma ko xamee ca Gédé ci waxtu woowee ñuy wax ak léegi si la ma gis mu soppiku ci moom mooy bejaaw bi moom laa ci gis mu dolli ko ci waaye leneen dolli ko ci na meloon ca farlu gaag jaamu yàlla gaag ragal yàlla gaag gëm Sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko ak jariñ taalibe yi zaahir ak baatin di leen xettali biir ak biti loole ba mu jógee la ko tàmbalee ndax bi bi bi biñ ko yóbbu sëriñ tedd ki di ko dalal ci yoon wi def na fa xar baaxoog euh, ku wéri di ba àgg ci ñuy euh, àgg ci moom yaakaar fekk booba dañ ko yóbbu sëriñ muy dal saafara na kookee ba mu jóg ne njuraag te boobu dalagul alxuraan kon nag lii ñuy wax ci moom moom da koo dikkaale noo ngi ñaan kon bis bi képp koo xam ne teew nga ci wala nga am yéene teew ci wala nga def ci sa alal wala nga am sa yéene ju rafet def ko ci yàlla nan bokk jëriñoo njëriñul bis boobu yàlla sunu boroom taas na ci barkeem yàggal fi kilifaam eh, njabootam gi ci sunu kanam di sunuy kilifa sëriñ Cheikh ak rakam. ci ndigalul sëñ Muntaxa ak ci kilifteefam ginnaaw ba ci sëñ Cheikh jotee ndigal ci moom bam jox ko ndigal ne ko yeesalaat ndigal yeesalaat naa ndigal li na ngeen ko wéyal ginnaaw bu mu jotee ndigal loolu ci boppam moom sëñ seex moo ma jox kàddoom ngir ma jot li leen ginnaaw bu mu jotee ndigal loolu ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi toogal jataayub sëriñ bi ginnaaw boobu moo ma jox kàddu gi ngir ma jottali leen niñ ko baaxoo woote màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëñ Abdul Xaadir gi ñu baaxoo woo leen ci te woote bi nag ñëpp lañu woo bàyyiwuñ kenn seetewuñ kenn ni ko wolof yi daa waxe wooteeg ba bëstal lañ woote waaye woote wuñ wootu ketteeju ketteeju ci wolof mooy woo ñi bàyyi ñi ba bëstal mooy woo ñëpp ñëpp lañ woo ci bis bi nga xam ne moom la ñuy defal Sëriñ Abdou Khadre tam war a dëppoog ci weeru tubaab ñetti fan ya ci septembre bi nga xam ne mooy waa ji ñëw ngir bëgg a fàttaliku ilima ki nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa bi yoonu murit di ilimaan ji nga xam ne ci ñi gën a sàmm la bokk di ab sunni yu boo xam ne lépp lu tegta lu baatu sunni yu di tegtale rek jëfee na ko waxe ko ba ñëpp xam ne sunni yu la fàttaliku uh, uh, fàttaliku gu mel nii nag fàttali uh, wërta jaar ci ñun jàll rek te bàyyiwut ci ñun jeexit fàttaliku ku mel ne sëñ Abdou Khadir war naa jeexital ci suñu xalaat ak suñu dund nan la ciy mën a bañ jeexitale sax te buñ dundam bépp boo koy fàttaliku ay maanaayu yu ngëneel yu kawe la lay jàngal di la indil ab di eh, ab forsa am nos boo xam ne da nga ci mën a am kattanug ruu sa ruu dana sarsewaat bu doon bëtëri dana sarsewaat ndax boo dégg li mu doon jëf ci digganteem ak yàlla ak li mu doon jëf ci digganteem ak mbindeef yi dana sarsewaat sa kattanug ruu dana yeesalaat sa dund dana daggiwaat sa dogu ak sa ngëm dana dëgëral sa nammeel ak sa taalibe ndax moom mi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ay ro ay royukaay yi la royukaay yi nga xam ne dañoo yaroo ci daaree sëriñ bi te li lislaam dëgg dëgg dëgg lislaam ñu ñu ñu ñu wattu ko te jëfe ko dëgg dëgg dëgg na lislaam mel islaam ju raxut dara koo ju dara ak li lislaam indi moom la nekkoon di ko jëfe loolu nag mi ngi ko jëlee ci madrasatu xadi xaadimul Mustafa ba tax ñoom mujj nañ ñoom ñi ñee ñuy sëñ bi yar mujj nañ mel ne al euh, loolu yonent bi Aysatu waxoon ne euh, sallallahu alayhi wa alxuraan ji dox la ñoom meloon nañ noonu ko lay seen ak xam nañ ko lay seen wartiif xam nañ ko seen digganteeg seen borom ak ci seen digganteeg mbiri mbindee bi moo tax ñu nekk royukaay yu mag kon nag yàlla na leen yàlla na ko yàlla fay moo ki kemam yépp fay sëriñ bi nga xam ne moo def ci ñoom loolu sëriñ si di nee na woote bi nag <clears throat> ñu ngi ko jëmale ci mboolem képp koo xam ne kii jullit nga nga di <clears throat> ak foo ma dëkk ci réew mi rawatina ak nag ñi nga xam ne ñoom la bokk mooy bokk yi te ñu tàmm day bokk ci maam aram ak nuñ ci bokkee moo xam góor lañ ci boole wala jigéen ak ñi nga xam ne mooy njabootu uh, Maam Mor Anta Sali gépp ñu ngi leen ciy woo fu ci waaye mën nekk di ci woo mbooleem njabootu ci Ahmadou Khadim gi nga xam ne mu lay bokk Serigne Touba li tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci njabootug Cheikh Mouhamadul Mourtada tàmbalee ci njabootug Cheikh euh, soxna Fatimatu Dia ba ci njabootug soxna Maymunatul Makki al Kubra ak mboolem bokki jegeñaale yëpp bokki musée bi ñoom ñoom ñooy war a woote woo war a woote nag ñuy ñu leen woo ñoo war a woote di woo mboolem seex yi nga xam ne ñoo aju Serigne Touba ñëpp ak fu ñu mën a jóge mboolem seex yi amul kenn ku ci bàyyi woo nañ ñëpp ndax seen xaatu ñëpp la woon mbokk ñëpp la woon wala réew ñëpp la woon ñu ngi woo itam daa daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ak fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a bokk bàyyiwuñ kenn sëñ bi nee na mi ngi soññ itam mboolem jànkat alxuraan yi mën a nekk daara yi ak jàkk yi ni ñëpp mas jàng alxuraan li si Moustapha waxee woon léegi ak jàng xasida jullu ci yoon saa ma noo mu gën a baree dara du ci doy sëriñ si di nee na mate bi ngi fàttali mbooleem ñi nga xam ne bii dañoo baaxoon ci bis bii di waajal ay ay xéewal di ko indi taalibe yi ku mel ni sëriñ Cheikh Baara Mbacke ak jabootam ak sëriñ waa ko sëriñ Cheikh jaay bi njabootam gépp ak waa ko ak sëriñ Seydou Niang ak mboolem ñi nga xam ne bii baaxoo nañoo def ay ay ay teraanga di jox ay ay xéewal di ko bi bis suñu ne mi ngi leen ko fàttali te leen ci leen ko soññi lañ defee nañ ko defee ba def lu ko doon incha allah <coughs> na nag mi ngi woo ñëpp di soññ ñëpp waaye ñi nga xam ne bii nag ñooy waa borom kër gi te ñoo jiitu ci kër gi ci bokk ci jëwriñ yi bokk na ñoo ñooñu ku ñuy wax monsieur Pape sëñ bi ne mi ngi soññu bu baax di ko fàttali bis bi di woo Souleymane Ndéné Ndiaye moom itam mi ngi soññu bis bi di ko woo di woo sëriñ Alioune Badara Cissé Abdoul Karim Fafana ak sëriñ Aramine Mbacke di mbokk di taalibe di woo itam sëriñ Xaadim Diop ak sëriñ Galasmane Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi leen soññi kenn ku ci ne fa nga daa taxaw na nga def fas nañu nañu lay ñaan ngay def lu ko raw te yokk ko. di yëkkati suñu kàddu it ci turu mboolem njabootu sët sëriñ Abdou Khadir yëpp noo mën a bokkee ci Abdou Khadir muy mbokki mbusoo bi ak turandoo yi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd di yëkkati bis bi nga xam ne moom la ñu waajalee màggal gi muy conférence bi tan baaxoo ko ànd ak turandoo Sëñ Abdou Khadre yi ak mbokk yi ak ak sët yi ñoom ñu ñett ñoo ko baaxoo di ànd ak mbokki taalibe yëpp ci biir yëgle boobu nag ñu ngi ciy jiital mboolem ñun bokkal Serigne Touba ñëpp li tàmbalee ci njabootuk Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci njabootuk Cheikh Mahamadou ak njabootuk uh, soxna ja ba ci njabootuk uh, soxna Maymuna ñu ngi ci woo mboolem ñeen bokkal suñ Mor Anta Sali ñëpp mboolem ñeen bokkal maam Balla mboolem ñeen bokkal maam Haram ñëpp ak mbokki mbusoo bi yëpp ak uh, waaw ñeen ñeen bokkal suñ saa buso ñëpp mboolem mbusoo bi mbusoo bi nag moom seen cër la kon nag ñoom ñoom ñàkk jekk ñoo ko daa ànd kon seen bis la kon ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp di ci woo mbokki taalibe ak mboolem seexi sëriñ Tuubaa yi fu ci waay seexoo rek ñu ngi la ko yëgal di ko yëgal jullit yëpp ak taalibe yi bis bi nag mi ngi war a doon la première lañ koy def fii ci Kër Sëriñ Abdou Khadre ci gannaaw takkusaan incha allah conférence bi euh, thème biñ tam nag mooy alxitaabul murid yiw masuliyatun wa taxaddiyaat muy thème bu am solo boo xam ne sëriñ Fallou Boussa Xasan moo koy mooy def waxtaan wi waxtaan mi ngi tàmbali ci bu 17 heures jotee ginnaaw takkusaan ci la ñuy tàmbali waxtaan wi bu ko defee mën a teel a àgg incha di leen woo ci bis bi nga xam ne amuñ lu may moom muy bis bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy suñu bunt ci Serigne Touba muy Cheikh Abdoul Khadir te képp ku fi ñëw di gan ñun ñoo la war a daral ñoo la war a teer ñoo la war a teral kon nag fi ne nekk amatuñu waajtaay saa saa buy xëyee ci li war a dox jëm mooy luy jagal bis bi. kon ñu ngi woo mboolem daayira yooyu yaa yaakaar sëñ Abdou Khadr ak fi mën a nekk di ko tàmbalee ci fédération Dakar ci turu euh, sëriñ Cheikh Goumbala mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar yëpp ak fédération euh, waa Italie waa Espagne ak Amérique ak France ak mboolem daayira yi aju kër sëñ Abdou Khadr ak fi ñu a nekk di leen wax ne ñu ngi waajal bis bi nga xam ne amuñ lu may moom mu bis Cheikh Abdou Khadr di soññee itam ci ndigal li nga xam ne sëriñ Sidi joxoon nañu ko mu jëm ci. magasin bee ñu war a defar ci baxdaat ngir matériel yi ñu digaloon ñu wut ko bi ñu ko wutee ba noppi day bañ ñu bàyyee ko mi mi saaw wala bi saaroo mu ne nii wut fu ñu ko denc kon loolu sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali mboolem daayira yi ak fu nekk muy fédération yëpp liñ ci am seen addi yi ñu indi ko bala ñoo bala ñoo màggal ndax suñu bu ñu tax xeer bi bala àgg ci màggal gi li nga xam ne moom lañ baaxoo woon addi yi ñu baaxoo woon joxe ci màggal gi itam sëriñ bi nee mi ngi leen koy fàttali ñoom ñëpp kenn ku nekk eh, boo jurul lettre itam nanga xam ne boo déggee appel bi mooy mooy mooy su soññee. ñu ngi nuyoo ci turu suma jawrin yi nga xam ne ñu ngi biir Touba di sëriñ Djili njaay ak sëriñ Touba Mbacké ak mbooleem kilifa yi ci biir euh, dëkk bi ak Sénégal sëriñ Touba Mbacké dafa wax ne <clears throat> mu ngi leen di soññ baax ci ndigal yi nga xam ne daanañ ko déglu di ko jëfe mu ne sant na ci jàll lool waaye mi ngi leen di soññ ci yi ci kanam. mooy dafa bëgg fu ab donga mën nekk ci réew mi ak bitim réew nga bàyyi sa xel ci ne sunu bis bii nga xam ne moom rek moo ñu war a ñor egsi na ñu fexe ba liggéey bi nga xam ne daan ñu ko féetale ci biir kër sëriñ bi ñu fas ko yéene def nu raw nañ ko daa defee te nee itam nañ ci jiital ab yar jiital ci ay teggin ak taalibe gu mat sëkk ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy roy ci dongab laxasaay bu noppi ci moom lañ ko war a roy ci wetu taalibe nee na kon mi ngi leen digal biir kër gii nga xam ne coono gu sëriñ bi ne nañ fi dugg ak ab yar dugg fi ak i teggin te fexe ba njëkk fi te mujj fi te lépp loo xamee ne itam daa nañ ko fi def ñu def ko nañ ko daa defee bun fanaane ba bët set nañ buub kër gi ba mu set ñu raxas ndab yi boole na leen ak sëriñ Afi Bousso mi nga xam ne mooy seen jëwrin bu ngeen noppee mu ñaanal leen ba ma ne mën a jàkkaarloowaat ak sëriñ Sidi. yéen turandoo Cheikh Abdoul Khadir yi ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu jëwriñ sëriñ Seydil Mokhtar ibnu Cheikh na Abdoul Khadir nañu jàkkaarloog yéen ngir yeesalaat ndigal yi nga xamante ne rek moom lañ leen daan jox naka jekk ndax soppikuwul ndax màggal gi bañ ko dalee sos ba nëgën si yéen yéen a ko sosoon ba tey mu egg fii kon lu suñ borom barkeel la sant na leen itam wax dëgg yàlla gërëm leen ci li nga xamante ne moo jot a jàll loolu na kon li muy firi mooy ñu gën a farlu ci li ñu jëm rek baas bi nga xamante ne moo nekk ci bunt bi naka jekk yéen la ko joxoon ngeen daan ko teg ci loxo Cheikh Abdoul Khadir ngeen daan ko teg ci loxo Serigne Khadim Guèye di ko jàng kon nag la ca war lépp ba tey yéen la war euh, ci turu nag euh, suñu njiit di Cheikh Abdoul Khadir mu suñ am di ak soxna Moominatu mu Daaru Salaam moo joxe ndigal ne nañ ñëw fii wax leen ne teg yi nga xamante ne da ko daan cotiser mu daal jëm ci màggal gi soxla nañ ko lool li nga xamante moo di suñu cër itam ci magasin bi nga xamante moom la ñuy tabax baataat ngir war faa mën a garde euh, bagage yi ba tey soxla nañ ko lool kon lépp nag na ànd ñëwandoo sëriñ ji liggéey mi nga xamante ni tamit moo jiite liggéey bi dafa wax ne mënuñoo ñàkk woo nag ñi nga xamante ne ñoom la daan ànd liggéey bi te seen loxo daan ci feeñ muy waa Daaru Salaam waa Gédé Bousso mbakke Bawal Thiès Louga Kaolack Diourbel ak Jiwaalo Wélingara ak Grèce Kaffrine ak Dakar ak bitim réew yëpp ku ci bëgg nag lu gën a leer du xaj fii lépp waaye boo jokkoo ak moom ci numéro bii rek 77 518 27 19 518 27 19 boo ko defee rek incha allah loo bëgg ci renseignement da nga ko jot. dégg ngeen ñi fi jël kàddu yépp xam ngeen ni nag cérémonie officielle bi la kat lay doon bu ñu màggalee ba ca ëllëg sa ci bu dix jotee ndax dañoo bëgg mu teel ndax ku ne xam na Cheikh Abdou Khadir ak waxtu kon dañoo bëgg cérémonie bi teel bis baa ngi noonu bis bi nag mooy bis Cheikh Abdou Khadir l'islam bee ko seere ak diine ji waaye ñi mu bokkal lislaam bi ñoo ko seede dégg ngeen la Alaaji Abdu waxoon ci moom ñu ko jiiteel yàllaa la jiital Cheikh Abdou Khadir jógal nga jiite dégg ngeen Maodo si la yilimaani Ndakaar la waxoon ba Cheikh Abdou Khadir demee dana yilimaani yilimaani yi dem na ku munta leble it war a mën a fay bor bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu fenn soppe xarit wala ñëpp sëñ Moustapha woo na leen ci turu sëñ Cheikh ne ñëpp ñëw la trois bu kenn manqué xéewal yu seex jiili wàccaalee ci àdduna ji nit ñëpp xaj nañ ci kon màggal si la li jiili nekkul ku ñuy fàtte sax ngir xol yi yëpp la sax ngir ñëpp a koy bëgge naa maa bëgg si jiili